Alioune Faye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. Alioune Faye nga nekk secretaire général bu SATUS di syndicat bi ëmb travailleurs euh, des universités du Sénégal ñan ñooy euh, liggéeykatu université du Sénégal nga wax ñu tamit ci seen syndicat bi le merci beaucoup suñu syndicat bi syndi tudd syndicat. Euh, autonome des travailleurs des universités du Sénégal syndicat bu nationale la bu mag la boo xam ne boo demee Dakar nga fekk ko fa au centre des œuvres universitaires de Dakar boo demee Thiès nga fekk fa au CROUS de Thiès boo demee aussi Sine salum bu nga xam ne Fatick la Kaffrine ak Kaolack aussi nga fekk ko fa mu ngi aussi euh, monter suñuy section université euh, euh future au niveau de université de Giguinchor euh, et aussi on envisage euh, euh, monter la section qui se trouve à Saint-Louis ñooñu nag dafa nekk ñi nga xam ne du ñu jàngale jàngalekat mais ay liggéeykat yi nekk ci université yi la boo demee ci bureau yi boo demee ci administration yi ñooñu nga fay fekk donc ñooñu ñooy syndicat ñi nga xam ne ñoo bokk ci syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal donc ngeen nekk si ñaata membre exactement ak tamit ban at ngeen. sos boo ñëwee Dakar boo ñëwee dakaar ñaari téeméer ñaari téeméer ak euh, ak ak ñaar fukk ou bien ñaari entre téeméer ak ñaar fukk ak ñaar téeméer ak juróom fukk. ci la ñu toll boo ñëwee Dakar donc euh, boo demee euh, Thiès eggaguñu foofu tollaguñu foofu parce que Dakar moo ëpp Thiès Euh, mais syndicat bi taxaw na fa am na bureau am na lépp am na ay adhésion yu bëree bari boo demee Sine Saalum aussi naka noonu donc euh, fi mu ne nii c'est un grand syndicat. Mhm. qui est un syndicat national yu xam ne ay section section la. te ñu bokk nag ci centrale syndicale bi nga xam ne moom mooy la FGTS te camarade Sidya Ndiaye euh, jiite ko. waaw voilà kon yéen da ngeen nekk ci biir université yi di liggéey ci administration bi mais du ngeen ay jàngalekat comme ça mu leer ci boppa askan wi waaw du du jàngalekat yi liggéeykat yi la ci biir université bi voilà kon kon nekk ci restaurant yeeg yëpp ci lañ bokk wala yëpp ci lañ bokk waa d'accord ci secteur yu ne waaw secteur yu ne waaw ci lañ bokk restaurant ñi gérer chambre. Euh, chambre yi ñi gérer waaw waaw voilà mu ngi ñu ngi si biir kon tey ji bala ñuy ñëw par rapport si seen sortie bi ngeen def di laaj revalorisation salaire yi euh, dañuy taxaw ci jafe-jafe yooyu nga xam ni euh, peut-être yéen a ngi koy rencontre rencontrer quotidiennement ci seen liggéey ci biir université yi jafe-jafe yooyu yan la exactement. waaw euh, euh, di nga ma obligé ma ñëw wax ci tuuti rek. mais ah. du woon ordre du jour. waaw mais bëgg nañ ci xam tuuti nag lu xaw a yaatu. <laughs> d' accord comme que dañ la defal invité matinal voilà. Euh, d' accord d' accord euh, tey suñu seul point de revendication moo woon au salaire yi nga xam ne euh, état président vraiment am na yéene defal ko liggéeykat yi te ñu war ci bokk te jotaguñu ci mais comme da nga ma laaj yeneen jafe-jafe dinaa la ci yokkal ñaar yoo xam ne soxal nañu soxal na travailleurs yi muy li nga xam ne mooy. transport yi euh, des des des des agents ñoo xam ne université boo dem problème la fa lii yóbbu étude liggéeykat yi di leen indi euh, ay car ay bus dafa manqué pour euh, travailleurs yi donc lieu de travail boo dem université boo dem ña fa nekk vraiment soxla nañ ko parce que bu ma jëlee université seen exemple université Sine saalum dafa nekk université boo xam ne mu ngi ci ñetti région Kaffrine Kaolack ak Fatick donc liggéeykat yi fa nekk il faut ñu am lu leen di yóbbu di leen indi bu ñu ko amul rek day indi problème te problème yooyu chaque jour dañ koy jànkonteel donc ñooñu soxla nañ loolu beneen affaire bi mooy point boo xam ne yàgg nañ koy revendiquer mais ba léegi niñ ko soxlaa ak niñ ko bëggee amaguñu ko dañu bëgg vraiment ku nekk université Dakar di fa liggéey ba sentir ne bëgg nga dem beneen université nga mën a dem ci sa coobare boo demand ñu yóbbu la mais boo jógee Saint-Louis bëgg a dem Fatick nekk université di Sine Saalum nga mën a dem ci sa coobare boo demandé mais ba léegi loolu mënaguñ ko am euh, état bi lim ñu mayaguñ moom boo mooy par exemple boo nekkee ci université bi gis ku nekk ci université bële mën ngeen def permutation mais tant loolu amul kenn mënul déplacé wu kenn mënul am affectation ku nekk fa nga nekk ngay toog donc loolu aussi soxal nañu trop trop trop trop bëgg nañ am évolution ci côté boobu donc en grosso modo. Mhm. ñaari points yooyu rek laala la mën a yokkal ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi ci université yi te ñu war ko saafara. voilà tey jii ngeen taxaw te mu ngeen ne état bi na defaraat seeni salaire comme ni mu ko defee ak agent wu euh, fonction publique yi euh, lan moo waral euh, ngeen laaj laaj bu ni mel Euh, njiitu réewu Sénégal moo leen ko promettroon wala naka la demee si yaatal ñu comprendre lan moo waral ngeen ne nañu si yokk seen salaire coûte que coûte. waaw xam nga loolu sax du revendication boo xam ne dafa jóge ci ñun dañu toog ba ngoon ci conseil des ministres ñu lire conseil des ministres euh, communiqué bi Sénégal yépp dégg ne président de la république euh, namm na yokk salaire u travailleur wu administration bi euh, ba mu joxee ndigal la jox ko jawrin yi ko war a saytu jawrin yooyu ba saytu ba jotee saytu nañ ko commencé koo def mais ñun ñaari weer a ngi nii ñu toog di xaar gisuñu dara hmm. ñu ne nag comme ñun ci ñi ko war a am la ñu bokk te gisuñu dara dañoo war a jóg nag ñu wax askan wi xam ne kat lii président maye décision yi président jël ñun jotaguñu ci président bu ko déggee mën a joxe institution moom itam ndax mu mën a egsi ci ñun loolu rek la du leneen euh, donc loo xam ne dañ ko war a am la amaguñ ko te commencé nañ ko joxe ñu jóg ne na yegsi parce que nag loolu ku nekk bëgg nga ko parce que li tax président joxe ko mooy pour ñu mën a vraiment gën a téye suñu kër yi gën a téye suñu suñu njël yi gën a mën a def ci euh, faj soxla yi ci ci ci kër yi donc loolu rek la. maanaam daal euh, su ma déggee euh, yokkute gi nga xam ne déggoon nañ ne Macky Sall daf ko yokk euh, agent yi nekk ci fonction publique di publique bi yokk boobule dafa am xaaj seen maanaam discrimination dafa am ñu jot am ñu jotul yéen bokk ngeen si ñooñu fii ñu toll ñii ñun bokk nañ ci ñu jotagul te war nañoo jot loolu mooy wax ji ñun dañoo jotagul donc am na ñoo xam ne jot nañ am na ñoo xam ne jotuñu. léegi euh, euh, autorité yi wala peut-être benn explication lañ leen jox ci ñàkk jot boobu nga xam ni jotoo leen ko yokkuteeg salaire yi. Euh, d'ailleurs loolu bokk na ci li tax sax ñu jóg wax parce que ñoom waxuñu dara te ñun aussi xamuñu lu tax exeegul ci ñoom donc moo tax ñu jóg donc xëy na ñoom nag fi mu ne nii ñoom ñoo ñu war a woo ne ñu nii la demee nee la demee wala bés nangam dina egg ci yéen. est-ce que fas yéene ngeen def ay yëngu-yëngal euh, def marche wala sitting en tout cas daal euh, pour président mën a jot ci message bi mën leen a geersu nu mu gën a gaawee. waaw waaw def nañ li ñuy def démb diggante démb ak tey mooy point de presse bi defe naa rajo yi ak télé yépp wax nañ ci démb tey ñu ngi commencé nii continuer di ci wax. defe naa ni ma leen ko waxee nee naa leen fii ba octobre bi nga xam ne ci la ñu war a ubbi bu dee gouvernement bi deful li mu war a def ba affaire bi yegg si ci ñun ah bu boobaa ñun itam dinañ taxaw tem pour laaj nag li ñu moom. d' accord di ngeen taxaw teem kon fas yéene ngeen def ay marche ak sitting fas yéene wu leen toog rek di def ay conférence de presse. ah déet ñun kay euh, étape par étape la. Hmm. xam nga def nañ point de presse ba pare. waaw ñun moom fi nekk di def ay point de presse. waaw point de presse bi pour ñu ñi xam fi ñu toll ci mbir mi la ñëpp xam nañ ko fi mu ne nii soit ñoom ñu def ñu ubbi ñu ubbi soit bu ñu deful ubbite bu jotee banque suñuy loxo. mais est-ce que jéem ngeen contacter ñiy gérer centre euh, des œuvres universitaires yi nekk ay Dakar Saint-Louis wala feneen ak feneen ci Sénégal. ñuy xam nga xam nga xam nga mesure bi du foofu du ñooñu ñoo ko jël. Eh, mesure bi mesure présidentielle la. instruction présidentielle la. donc président jëwrin bi mu ne defal jëwrin boobu moo def. te bi mu defee affaire bi egsiwul donc jawriñ boobu bu dee ñu nga wax noonu moom moo leen war a contacter jox leen ordre ne leen def leen. léegi euh, ñu laaj la si beneen question d'actualité bala ñu lay bàyyi di wax nga ko sànq sax ci biir wax bi euh, ni lépp cher moo tax dañ leen war a yokkal euh, seeni payoor ñu gis nag actuellement pratiquement lépp dafa daal di yokk fii ci Sénégal yow ban jàngat nga ci am ban avis nga siy joxe. waaw yokku-yokku boobu moom fu nekk santir nga ko ku nekk yëg nga ko ci sa dund mais lii am solo te nit ñi war koo jàpp te itam mu tax duñ ci ŋaañee kenn mooy yokk yokk yooyu yëpp dafa lëmbe àdduna bi fépp foo dem ci àdduna bi loolu moo fa xew li tax loolu am nag dañu jógee il y a de cela deux ans ci Covid boo xam ne dafa nasaxal économie bi partout dans le monde Covid bi bi mu paasee euh, mu am ci euh, àdduna bi foo xam ne guerre def fa am muy guerre entre Russie ak Ukraine mu encore euh, handicapé lu bëree bëri marchandises yi niñ doon ñëwee Sénégal ak Afrique ñëweetuñ noonu donc mbir mi cher pétrole bi aussi baril bi yokku donc àdduna bi yépp a sentir ne jafe-jafe am na donc moo tax ba fii Sénégal euh, dund bi neexul neexatul yombatul parce que lépp a yokku mais lii ci jàngat mooy bi mu amee nguur gi toogul rek ne yàcc na yasar ah déedéet gis nañ muy def ay subvention ci ay produits ba nit ñi mën koo continuer di ko jënd gis nañ aussi muy def ay transfert cash di jàppale ménage yi vraiment loolu dañ koy saluer ba pare beneen bi mujj mooy bii nga xam ne président mesure bii nga xam ne président jël na ko jëmale ko ci travailleur de l' administration mu nekk loo xam ne biñ ko déggee dañoo tàccu waaye dañoo am mbégteel en même temps moo tax ñu jóg aussi di ñaxtu parce que mënul def mesure boobu mu waroon egsi ci ñun ñu toog di xaar boobu ba léegi ñaari weer a ngi nii am ñu koy jot te jotuñu ko te ñun nag ñun université yi defe naa bu ñu banquee suñu loxo ci liggéey bi ah njàng mi dina sooxee surtout njàng mu kawe mi te njàng mu kawe mi nag bu sooxee defe naa réew mi dina ko yëg bu baax a baax a. kon Alioune Faye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di jaajëfal vraiment. voilà may fàttali yow yaay secretaire général bu SATUS di syndicat bi nga xam ni moo ëmb les travailleurs des universités du Sénégal. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf.